dëgg la làmp bu mel noonu du fay ba dina tukki waaye waroon nañu mën a gën wax ci ay ñeneen ñoo xam ne ci beneen dimension ak ci ak ci yeneen niveau yoo xam ne xëy na du toll noonu waaye ñoom itam ci seen jom ak seen ngor ak seen nungoo jàmm yàlla ak seen nungoo participer ci société bi mais en gardant leur valeur ñoo ñooñu war nañ mën a émerger dëgg la ay benn benn ñu ngi ko ci dégg waaye defe naa ne li ci Sénégal mën a jur ci capacité lu mel noonu jureegu ko loolu war nañ ci góorgóorlu ba mu mën a am ñu tamit que ni à part loolu bi nga xam ne màggal Porokhane am na ko léegi ci murid yi dafa gën a yokku euh, gis nañu nga xam ne njaboot sëñ Touba daanaka ñëpp ñëw nañ sëriñ fi nga xam ne moo di Porokhane loolu ban jàngan nga waaw man boobu xaw ma ndax man am naa wala déet waaye ñaar rek laa ci gis mooy bu njëkk bi moom mooy moom nga ne ñëpp gën a gis. mooy ki nekk Serigne Bassirou moo daan màggal màggalu Porokhane kooku dem nag ba ki nekk Serigne Bassirou di nekk Serigne Touba kon boobu day daal di war wuute ak bu njëkk na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 maam bu jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta ma